pourquoi Ousmane Sonko borom baax pourquoi Ousmane Sonko parce que ñu bëri dañ ne moment bi comme franchement jeunes yi dañ ko jox bopp et tout il fait le plein ci lépp même par rapport aux derniers résultats locaux législatifs c'est parce que c'est parce que c'est Ousmane Sonko moo tax. non Ousmane Sonko li ma xamaleek moom wala boog mën naa bañ a wax xamante biir buñ xamante mais li ñu xamalante ci kaw nii mooy que ne man damay ñëw ci télé bi di toog. yow xam nga ne actualité Sénégal ba mu daj Ousmane Sonko la barki démb Moussa Fall jabaru officier yi ñooy def conférence de presse benn euh, ab ab ab ab conférence religieuse invité ko ca mu ñëw moom Sonko la def te moom moom xam nga ni Sonko la fu nekk woon tey jii gis nga dafa dalal après mu ne mu ne am na te ne seen itinéraire donc loolu moom ça renvoie à Sonko effectivement ma tooñ sama xaritu eh, bi nekk caserne ma ne ko xanaa soxna yi soxna yi soxna yi soxna yi officier yi xanaa dañ dul nelaw guddi dañuy tëdd ak seen jëkkër yi di wëlbatiku Moussa Fall naan leen dee leen nelaw guddi quoi. ah ñu dal parce que ah, Sénégal soxna officier yi la dajale naan nelaw guddi. bi Sénégal cheikh bi moment bi Sénégal yi dañoo tiit Sénégal yi dañoo jaaxle. non Sénégalais yi jaaxle wuñ dama ne moom bu toogee ak soxna officier yi li mu wax même bu fekkee soxna officier yi dinañ nelaw ñoo parce que daawuñ nelaw kon xay na mais bu fekkee moom nelaw loolu na soxna officier yi ñun ñun population bi duñ nelaw. d' accord parce que nee na. mais dégg nga li Moussa Fall wax. waaw am naa ay ngànnaay yu yu kenn gisagut te dinañ ko dóor. loolu xam nga kan moo ko war a wax. Hmm. Vladimir Zelensky ak Vladimir Poutine Poutine. d'accord ñoom ñaar maanaam réew ak réew mi jàkkaar loolu la mel ni réew mi di war a wax discours naan am nañ ngànnaay dinañ utiliser ngànnaay mais yow koo xam ne nii saa boo jàppee téeméeri nit soo jàppee téeméeri nit. def leen euh, sécurité urbaine toog soo xëyee suba ajaa bi tey mooy ñëw ne la man de suma rakk moo ci nekk ñaari sëñ daara ñëw ñu de suñ benn xaritu sëñ daara lañ jàpp médecins yi ñëw am nañ ci ñaar dégg nga moyen mbootaay yi ñëw jaaykatu jën yi maanaam ñooñu nga ramasse yow mm-hmm. léegi ñooñu yow problème ba nga am ak ñoom ba leen dikk ay ngànnaay yoo leen war a dóor ba pare naan tëdd leen nelaw ñu ñu nelawee d'accord maintenant cheikh bi ànd sa rapprochement ak Sonko dafa am dividende boo siy waaw au parce que ñu bari loolu moom moo leen jaaxal pourquoi Sonko. <coughs> pourquoi Sonko mooy Sonko dañ koy jaay doole man sama option ci politique du du ab topp ci ak ginnaaw leader naan parti bii laa bokk wala leader bi mooy sama leader. lan mooy sa option. man mooy toog suma daara ji bu ma amee caméra bu fi ñëw laaj ma suma xalaat ma wax ko te yàlla tax. d'accord mitinu politique maa ngi ciy doog a dem keroog bi bi soo koy wootee Kër Massar. ak bi mu wootee parcelle parce que guddi yi ñu toll Sonko ku koy dimbali da ngay dem yokk ko mbooloo yokk ko fit parce que jaay doole gi dafa metti te Macky Sall bés bu Sonko woote woon mu yaraax bu xëyee mu dem jëli ko ndax day dem ci télé yi di ko jabolise léegi su wootee day xool ba xam est-ce que booy yi ñu ngi koy gëm ba léegi est-ce que nit ñaa ngi ci ginnaawam su woote woon nit ñi nekku fi danaan li ma doon def jàpp na boo demee sax ma ngi koy jàpp na daal dem jëli ko toujours nag man dama bokk ci li may def mooy di renforcer Sonko fit ak di ko renforcer mbooloo parce que niñ koy jaayee doole li Macky Sall bëgg mooy coûte que coûte balaa élection yee mu mu xañ ko ay droits civiques te yow xam nga ne suwaawu sénégalais yi bu dee dañuy wax démocratie suwaawu sénégalais yi bu ñu ne woon tey kan lañ gën a choisir Ousmane Sonko la. d'accord politique léegi nag sénégalais yi man du ma nangu ñu bëgg a def benn choix nga bëgg leen a jaay doole na du ngeen ko def parce que Macky Sall su dul woon ak démocratie mënul jiite Sénégal. bu fekkoon lu ñu ne famille la moom amul fami buy doon senegal bokkul ci benn fami bu mos a jiite nguur ci yilif ak nguur ci réew mi buñ ne woon alal la moom fii la doon luyee Castor dégg nga kër gi luye woon dafa xat ba mareem da daan taal añ bi ci biir toog ci toog ci mbedd mi yor wantaayam pour pour moo moo moo moo bi xajuñ ci biir biir bâtiment bi dégg nga bu doon bu doon xaalis du ko am lenn rek moo mën a tax moom mu jiite Sénégal muy mu nekk pays boo xam ne da mën a demal sa bopp ci nit ñi. def nemmiku tour mooy wax convaincre sénégalais yi waxtaan ak ñoom ñu wóolu la fal la. d'accord loolu rek loolu rek rek rek rek la Sénégal mën a teg Macky Sall mën cee wu nekk président. léegi nag bu fekkente ne. Mhm. dafa bëgg nag léegi nit su bëggee dem ci sénégalais yi waxtaan ak moom ñu fal la mu bëgg a loolu kooku ñun ñi fi nekk dañuy xeex loolu. pour yow Sonko taxawaayam ci daf ko war a continuer ci wàllu résistance ba léegi. Sonko. bu résisté wut xam nga dafa am lu Macky Sall wax lu doy waar nee na démocratie authentique moo am ci réew mi mooy bi muy waxtaan ak télévision France bu mujj bii. nee na démocra démocratie authentique moo fi am bu dul woon ak démocratie ñu defal affaire Sonko ñu lijjanti affaire am pourtant jour boobu Macky Sall di wax jour boobu Sonko mi ngi ci lalu hôpital dañ ko gazé lacrymogène dañoo toj otoom saax saaxee ko yanu ko. te amul benn yoon bu ko wax yóbbu ko Macky Sall nee na malgré que ki ngay wax mi ngi ci hôpital malgré que yaa ngi toj otoom malgré que yaa ngi koy sànni lacrymogène te nga ne bu dul woon démocratie ma defal ko affaire léegi lan ngay wax ko d'accord xanaa bal fetal ngay bëgg a wax wala lan wala ay ay ay ay looy def da ngay taal wala loo koy def parce que bu dee jaay ko doole moom ñu ngi koy gis nga ne bu dul woon démocratie bee mu xam kon donc dama bëgg rek nga gëm yow nga gëm nga jéem a imaginer problème Ousmane Sonko bu nekkul woon Sénégal nga xam ne Sonko nekku fi. Mhm. amu fi problème Sonko ay problème yi yëpp amu fi. Macky Sall ban xaru kanam la war a wan Sénégalais yi tey. d'accord alors. loolu laa bëgg nga imaginer ko moo tax ku yeew boo sëlmoo ba noppi war ngaa wax jërëjëfe Ousmane Sonko.